jërë ngeen jëf xale réew mi seen bakkan a ngi ci xottu geex te enfant en danger loolee mooy gis-gis bi l'observateur am ci li xew ci réew mi ubbil yéenekaay bi am na benn élève bu jigéen bu toll ci juróom-ñaari boo xam ne journal bi nee nañu nday ju liggéey moo ko tere sànku dem bu ne ci Médina la xewee benn waay bu ñu naan William Goudiaby moo gis ci rond-point Médina benn xale boo xam ne seen nas ndaw moo jàpp ci loxoom ànd ak moom xale bi di jooy jooy yu miti waa ji ñëw laaj xale bi di jooy ndaw si ne ko sama doom la dama ko yóbbu kër ni jaayee mu bañ loolee lay jooy waa ko kon na dem ba mu yàgg mu dégg xale bu jigéen bi jooy a yokk muy jooy-jooy yu mitti William Goudiaby xelam tey mu dem ca benn policier bu monté woon ca boori rond-point Médine wax ko yëf yi policier bi ñëw ci ndaw si laaj ko xale beeg lu muy jooy ndaw si nekk fa di làkki daadaa ak di dof-dofloo policier bi boole ko mu xale bi yëpp yóbbu police bu rëbës ba ñu yeggee gars yi commissaire Bara ña ngi enquête ko ci enquête ba ca la ñu xamee ne ndaw si waxul dëgg jurul xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi élève la école Clémenceau 2 lay dafa jàngi woon dem fekk seen madame feebar ñu bàyyi leen ne leen nañu ñibbi ba xale yi ñibbi ca la ko ndaw si jël yóbbu réew mi quotidien ndaw soosé bëggoon a sàcc xale bi dëkkul ci réew mi réewum Nigéria la dëkk la Sénégal ni ko mukk ndaw si Sénégal gii la dëkk Aïssatou Diallo la tudd moo solo noo xam ne ak di waxe noo xam ne daa bëggoon gaañi teg ko ab Guinéen Vox Populi weddi la Sénégal ba mu set wecc nee nañu ndaw si doomu Guinée la bala sant fanweeri at ak ñaar la am am na ñaari doom yoo xam ne ma ko bàyyi ca Guinée moom soxna si moo wax loolee ca kanamu enquête kat yi ca police bu rëbës l'observateur ne leen may ma ma yeggale dugal ko ci 4-4 gaañe di jël essence mu ubbi bunt bi daw l'observateur nee nañu loolee dara ci amul xale bi moom monte lépp li ci am moo di xale ba élève la fukki at ak juróom-benn la am dafa def composition amul moyenne bu baax 10 sur 20 dafa def composition amul moyenne bu baax di sur 20 mu xam ne bu demee kër ga yóbbu bulletin ba ndayam dana ko yàq mbelengaan moo tax xale bi inventé lu ni mel waaye dara amu ci kër ni jaayam ga la doon dem direct info nañu li jara laaj moo di ndax ministre protection des enfants na ci réew mi maanaam ministre buy taxaw gone yi ne nday roqaye gay jóob mi ñu ne mooy ministre dundu xale yi moom xale yi ko ëpp njariñ ci réew mi ñoo ngi sàcc xale yi di leen faat ak sa ñoo yi di leen sàkku réew mi yëpp nekk ci jaaxle te Ndeye Rokhaya Gaye Diop mi ñu ne mooy ministre protection enfance kenn dégg ko mu wax ci dara leneen lu journal direct info di laaj moo di xale yi nekk ci biir kër yi bu dee seeni waajur ñoo ngi waggar ci ñoom xale yi ci mbedd yi ñoom kan moo leen di protéger laatir bi nañu honorable député Ousmane Sonko li mu jàpp ne moo fi mën a jëlee xale yi ñuy sàcc di leen rey moo di képp kuñ ci jàppate nga jàpp benn mineur rey ko ñu teg ci sa kaw peine de mort maanaam la sukk la cloche njiital Pastef du Ousmane Sonko ne ñu lépp li ko di cuune ak yaafus goo xam ne Macky yaafus na ko ne mbir day xew ci réew mi ba lu ñu leen a dégg ñu wax ci rek daa fekk askan wi wax ko ba bàyyi jooy ko ba sottal ñu ciy soog di addu nañu addu ñu it ci wàllu politique yëral xët bu njëkk vox populi ngir ñaawlu ak a ŋàññ ak a jéebaane li nguurug Macky Sall ci réew mi moo opposition bi nee nañu seen toogaanu ñaxtu bi ñu a a fa beneen 23 juin le quotidien nañu waa IED mu di initiative pour des élections démocratiques ñoo nas xalaat bu ni mel l'observateur nañu ku jëg gi ñoo ngi waa askan wi yëpp ngir ñu dem daje ci assemblée nationale ngir xeex constitution bi ñu bëgg a laalaat ba di ci dugal ay waxi parrainage Pape Diop njiital bokk gis-gis nañu ci xët mu njëkku les échos ñoo ngi woo askan wi yëpp ngir ñu fekk suñu buntu assemblée nationale ñu defaat fa beneen nañu opposition bi soppi na place place Washington ca buntu ministère intérieur foofee la ñu woote woon tey waaye nee na dañu koy bàyyi place Soweto ca buntu assemblée nationale fa la ñu bëgg dem la Sénégal nañu opposition bi ak li ñuy bañ ak li ñuy xeex mu dañu joyandi constitution bi ak waxi parrainage bu ñu moytu léegi tey bëy wëy ndax sisir nañu conférence des présidents ci assemblée nationale ngir mu wax ci marché central bu Thiès tàng na jër li ñu def keroog mu di jóge ci Idrissa dem fekk Siré Dia ci marche vers 2019 ngir falaat président Macky Sall 2019 ca premier tour ba journal bi nañu loolee moo neexul waa parti réew mi ba tax ñooñu Idrissa Seck tàmbali leen a fitnal ne bu ñu sukkandikoo ci Lika Dieng démb brigade bu Thiès Nord la ñu leen yónnee ñu dem ca marché ba bëgg leen faa jëleen ndax nee nañ leen fa ngeen lal di jaay waru leen faa lal te loolu dara amu ci li ñu jàpp moo di bàyyi gi ñu bàyyi Idrissa Seck dem ànd jeeg si Dia moo tax ñu bëgg leen a fitnal jàmm jeex na l'observateur nee nañu Aliou Cissé ak i gayndeem ñoo ngi waajal guerre mondiale Sénégal Ouzbékistan Milan Maxub Xarito tey jii 16h30 ca Maroc ngir waajal coupe du monde stade yéen a jàppee ko test bu njëkk ci Aliou Cissé ak i gayndeem ñoom gaynde Aliou Cissé yi record yéen a kay xëy leen boole benn photo ci xëtamu njëkk ba noppit xamal ñu ne Sénégal Ouzbékistan tey jii la ci ngoon Aliou Cissé dafa war a manier onze de départ am. waaw turandoo karo bu baax nu muy mel. soo jëndee karo yu